قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين
أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين kon ci bind boobu jot naa aaya ban ci la ci aywa naam ah daa am aaya ju ma waroon a jiital te jiitalu ma ko kon taxawuñu woon fii démb ah aywa kon baax na d'accord xëy kon defe naa fi ma wax ni fi leen taxawoon kon du foofu kon defe naa ñu ngi taxawoon ci laa yee ñeent fukkeel ak ñaar du noonu aywa kon suñu borom subhanahu wa taala ci aaye jooju borom bi subhanahu wa taala di nett li nett lépp firawna ba mu jeex ak Muusa alayhi salaam suñu borom ni wala qad aatayna Muusa alkitaab min baadi ma ahlakna alquruna al ula kon defe naa laay jóg lañ jàng suñu borom subhanahu wa taala ci bindab tay bi léegi nag mi ngi nettali nettali Muusa alayhi salaam ak Firawun waaye nettali gi li ci ñëwut wala li ci leerul ci saar bi nan jàpp ne yeneen saar yi mel ni Taaha yi mel ni Shuara yi mel ni Naml nga xam ni ca lañ génn yooyu daanaka indi na yi ci manqué moo tax ma ni ku fekkee woon ba ñuy tàmbali tafsir bi amoon suuratu Taaha am suuratu Shuara am Naml ga ca topp boo ko boolee Qasas daanaka li lay manqué ci xissab Muusa xaw tuuti kon Aaraaf boo koy fekk kon daanaka bu aarab di nekk xaaju kaw bi jàllee yi ëpp solo ci xisab Muusa ci xaaju suuf bi mi ngi yem ci suuratu Qasas sunu borom di nekk li yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ni ko wa laqad aatayna Muusa alkitaab nun yàlla subhanahu wa taala ñoo joxoon yonent yàlla Muusa téere bi téere boobu nag wax naa la moom mooy tawraat tawraat it nee naa la mooy téere bi gën a màgg bu alquran jàlle moo tax nee naa la foo seetlu alquran dafay lënkale tawraat ak alquran te parce que ñoom ñaar même même même injilu Isa nga xam ne dafa ñëw ci ginnaaw tawraat sax daanaka ñëwul pour folli tawraat wala gën koo màgg waaye dafa ñëw pour mottali ko bokk na ca la koy firndeel wala ubayyina lakum ba'da alladi xurrima alaykum maanaam yenn ci mbir yi nga xamante ne yun araamal leen ci yoon bu di leen ko leeral ak yenn atte yi ak teggil leen yenn ci diis diis ci yombal suñu borom mën naa ni loola la injilu Isa doon dox waaye doon ak fonn du gën a màgg tawraat it waxoon naa la ni katabahu llahu bi xatt yadi waa ndax loolu wér na ci xadiis bi aadam di dàggee ak Muusa alayhi salaam Muusa am ngeen ni ku ku dëerul fit la comme ni ma ko waxee dafa dajeeg bàyyi aadama mu ne ko yowee aadama abul bashar te xadis boobu mi ngi ci saxaa yeeg sunan yi xadis la bu wér mu ne ko yaay aadama abul bashar aadama ni ko waaw mu ne ko yow yaay ki nga xam ne xalaqaka allahu bi yadi yow la yàlla bind ci loxol boppam la mu ne ko waaw mu ne ko ëf ci yow ruux nga nekk aadama mu ne ko waaw mu ni ko lan nga doon xoole ba génn ñu àjjana coono bii ñuy daj yëpp nga di nga teg ñu ko yow li ñu daj ci coono yëpp yaa nga ko teg ndax boo nekkoon àjjana lekkoo ca garab ga kon ñun àjjana la ñuy toog ba tey lii lépp yaa ñu ko teg yaa ñu toog aadama ni ko yow yaay Muusa mu ni ko waaw waaw mu ni ko yaay Muusa banu Israayila mu ni ko waaw mu ne ko yow la yàlla joxoon tawraat bi mu bind ak loxoom boppam kon loolu ci tegtale la bokk katabullah bi xat sa yéen ji tawraat ji yàlla bind ci loxoom boppam yow la ko yàlla jox mu ne ko waaw mu ne ko ah Moussa yow dayoo ji nga am bañ jox la tawraat yow yaa ma bett naka nga may yendee ci mbir moo xam ni yàlla dogal na ko lu jiitu saa judd lu ëpp juróomi téeméeri at yent yàlla mu ne fa xajja aadama Moussa aadama daal di yey Moussa foofu nag borom xam-xam yi dañuy wax ne léeg-léeg di nga gis ñenn ci kuréelu sàkku yi ñi nga xam ne dañuy sukkandiku ci dogal suñu borom rek ne ah lu xew suñu borom ko dogal man am benn responsabilité comme Adama nee nag Moussa loo may yeddee ci loo xam ne yàlla dogal na ko lu ju- lu jiitu dëgg la loolu la Adama wax est-ce que loolu dafay tegtal ni Adama kon day def lu ko neex rek sukkandiku ci yàlla dogal na ko déedéet Moussa yeddeewul woon Adama dogalu suñu borom bi tax ñu génn àjjana waaye Moussa lam ko doon yeddee mooy sabab sam jur muy coono bi ñu jural tey loolu nag boo ko bëgg boo seetlu lu mel noonu da ngay daal di bëgg a dëggal ñiy sukkandiku ci buntu di ware comme Adama nee nag mënoo maa yedd ci lu yàlla dogal rek kon lépp lu yàlla dogal rek sa yoon nekk amul benn responsabilité ahan kay parce que su ahlu sunna wal jamaa mooy nit ki ku am masuliya la ku am responsable la ci lépp loo xam ne mooy gaar suñu borom daf laa bindal am xel xàllal la aw yoon ne la wii mooy wu baax wi wee mooy wu bon wi gindi la may la choix nag pour nga tànn yow nga tànn léegi selon sa tànneef nag ca la la sunu borom di àtte subhanahu wa taala sunu borom ni wala qad aataynaa nun yàlla ñoo joxoon Moussa yonent yàlla Moussa al kitaaba téere bi di tawraat min baadi ma ahlakna al quruna al ula ginnaaw boo xam ne alak nay maas gi nga xamante ni ñoo jiitu woon tawraat it nag borom bi dafa wàccee loo bokkut ak alquran tawraat borom bi xam ne alquran suñu borom wàccee lu ko benn yoon defe naa su ngeen fàttaliku suuf furqaan gaa ñu loolu anzalna alal alquran jumlatan waaxida yàlla mun ngaa yéebar ñu ne yàlla mënul su mënoon day wàccee loo alquran lépp mu ñëwandoo suñu borom mu ni déedéet kadalika nii mu ñëwee li nu sabbita bihi fuaada ci lay gën a dëgëral sa xol dëgëral sa ngëm wa rattalnaahu tartiila ni mu toppalanteeg organisé wu tamit nii la baaxee wala yatuunaka bi matalin parce que duñ la indil menn misaal illa jitnaaka bil xaq lu dañ lay indil dëgg tey effectivement ni ko yàlla wàccee xasbal ahdaar xasbal xawaadis ah wal ahkaam loolu lu am solo la léeg-léeg ñu toll ci ay diggante yoo xam ne aajoo rek alquran di wàcc suñu borom wàcce aaya léeg-léeg lëf am jaxasoo am yonent bi xamut ndax xamut kumpa lu dul la ko yàlla xamal aaya wàcc léeg-léeg ab saxaaba tuumaal morom ma aaya wàcc setal ko yooye day gën a dëgëral xolub aji gëm moo tax gis nga nit ki li muy am su ko amandoo benn yoon du neex arab yi dañuy wax ni maa uxiba jumlatan dahaba jumlatan moo tax booy jël leçon ngay jàng jox ma gaaw ma gaaw mokkal ma dem ñu ne la déedéet gaaw ci fërëx fërëx toq toq moo gën yuréet lu ñëwandoo benn yoon day demandoo bokk na ci yàlla defal yonent bi saa sallam mooy mu wàcceel ko téere boo xamante moom ndànk par ndànk lay wàcc borom bi subhanahu wa taala mu ni ah min baadi ma ahlakna al quruna al ula ginnaaw boo xam ne alak nañ xeet ya nga xam ñoo jiitu woon kon loolu boo defee seetlu di nga ci déggee ndeke tawraat bi muy wàcc ci Muusa fekk na yàlla alak na Firawna tawraat bi muy wàcc ci Moussa alayhi salaam fekk na suñu borom alak na firaaw la ànd ak loolu borom xam-xam ahlu siyar dañuy wax ni maanaam firaaw na mooy xeet wu borom soo dala mbugal mbugal mujjee mbugal mbugal mu metti mu mel ni mi mu doon mbugal xeet yu njëkk ya niti noox niti lóot giiral samul giiral saalex yooyu giir yëpp nga xam ne mbugal yi nga jàng ci alquran ñu doon leen ko mbugal firawna mooy ka ca mujj ci mbugal mu mitti ma fa axadahu llahu nakaal al axirati wal ula al qurunul ula yi nga xam ne mbugal yu métti yi mel ni bu firawna bi firawna moo ca mujj moo tax suñu borom mu ni min baadi ma ahlakna al qurunul ula ginnaaw si nag mbugal mu mel ni ñu suñu borom doon mbugal xeet yu njëkk ya amatut léegi li am mooy xeex ginnaaw bi ci lañ daal di yoonu jihaad Moussa ñoom commencé di jihaad xam ngeen ci jamonoy Moussa alayhi salaam jihaad amoon na danañ dem di jihaad waaye lu ko jiitu nag yàlla moo doon def bu demee ba yëf yi moom li mu wax rek falammaa aasafuna intaqamnaa minhum bu yëf yi demee bay bëgg a ëppi loxo rek sunu borom ba alal leen indi ñeneen fa ahlaknaahum ajmain sunu borom subhanahu wa taala mu ni kon ñoo joxoon Moussa téere bi lu jiitu ñuy alal xeer yu njëkk ya waaye basaira mu nekk loo xamante ni luy gindi la luy wane yoonu njub la waaye wa hudan basaira linnaas mu nekk luy wane yoonu njub di gindi ñeer nit ñi wa hudan mu nekk njub moom tawraat wa rahmatan mu nekk yërmande moom téere bi laallahum amaan na ñoom ñiñ ko wàcc ci ñoom yatadakkarun ñu mën a fàttali ko mën a waaru tawraat comme ni ma la ko waxee moo gën a màgg zabour moo ba gën a màgg injil waaye alquran ko gën a màgg kon bu alquran jàngee moo ci topp moo tax boo xoolee alquran li muy lënkale diggante tawraat ak injil tawraat ak alquran dafa bari lool sunu borom di wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni te lii min ayaati tasliya mooy aaye yi defal ko dalal xelam parce que léeg-léeg daa am day toll ci metti foo xam ni kat sunu borom subhanahu wa taala pour mu defal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faw mu fàttali ko la weesoo loolaa tax bu yëf yi masaana métti ñu wax ko wax yu ko métti danaan ko muñal maa yuqaalu laka illa ma qad qiila li rusuli min qablik gis nga lii ñu lay wax du lu bees waxee son na ko yonent yu la jiitu woon ñaareel man ko fasbir sabran jamila fasfax safxa aljamil wahjurhum hajran jamila yii yëpp borom bi di ko nettali ñi jiitu woon te doomu aadama léeg-léeg li muy dund ak lu mu metti metti ci moom su xamee ña ko ca jiitu woon gën koo baax ak mettit yan doon daj da koy gën a may courage da koy gën a jàppale moo tax dinaay wax ni siyaru salaf tàmbale ko saxaaba yak taabiuun ya li gën a gaaw ci ñuqi xol ku gëm yàlla bokk na ca loolu ndax léeg-léeg da nga gis dajeeg loo xam ne takaadu laa tusaddiq xaw tuuti ko da ngay bëgg a wetti yii yan façon nit lañu woon ba mel nii ndeke dem nite gi mi ngi dépendre ci xol bu wér bi ndax xol su xësee wér li ci war a ne ca pas-pas ne ca dara jombut maanaam yàlla war na ko mën a may lu ne subhanahu wa taala sunu borom di defal yonent mu ne ko maa kunta nekkoo woon bi jaanibil garbi yi ca pegg côté ba nga xam ni ca wet ga nga xam ni moo féeteeg sowu jant tuur fañ doon waxeeg Moussa wax yi fekkee woo ko wa ma kunta nekk woon bi jaanibil garbi yi ca wet ga féeteeg sowu jant garb mooy sowu jant nit la naa waxoon naa leen démb ni arab yi buñ daan natt ñoom dañuy yóbbu ci buntu kaaba bi rek boo taxee ci buntu kaaba nga ni waccax sa loxo rek fu féete nii rek nga ni yaman fu féete nii nga ni Sham loolu tax ngay dégg yaman ak Sham parce que kaaba gi yàgg na fi trop te orma ji ñu ko jox ñu njëkk ñu jooja lañ ko joxoon ndax loolu moom dëppoon na ci yéefar yaa julli ñaa ci bokk yaman xëy na yéen ca daan def moo ci bokk comme ni ko alxuraan nekk ne suñu borom ni id qadayna ila Muusa ba ñu dogalee ca Muusa jox ko al amra mbir mii nga xamante ni mooy wax yu gi ak liñ la doon nett ni wa ma kunta nekkoo woon min ash-shahidina ci ñi teew wet ga féeteeg sow jant ca tuur nekkoo fa woon bay mën a dégg wax ja te fekkee woo ko woon ba mën a teew loolu li ko yàlla bëgg a wax foofu mooy daa bëgg a xamal nit ñi ni ñii wax naan asatirul awwalina katabaha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génneewul ci benn université amul kenn ku koy dee jinne yi jàngale ko ndax jinne yi bañ dégg xam dañoo jommi dikk di ko déglu si yàlla ba koo xamal ni ko lii wax yu la bu bàyyi koo ci yam ci moom ñu nit ñu gëm ne lii wax yu la bu bàyyi koo ci suñu borom mu bëgg koo xamal ni ko fekkee woo ko woon loolu la koy wax ci Aïssa ah suñu borom mi ngi ko xam wa ma kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayyuhum yakfulu Maryam loolu leeroon naa ko surtout Maryam biñ koy tafsir xam ngeen ni bi Maryam juddoo kenn ku ci nekk di ngéejowoo yar ko te Zakaria nekk ndijaayam bokk ca ñoom ca biir bëgg koo aakimoo gaaya bañ dañ doon def li ñu tuddee tegoo bant tegoo bant ba wax tegoo xalima la ay xalima yañ doon bindee seen téere yi bu ko defee ku bantam génn rek moo koy yore yàlla def tawfiqi Zakaria jiitu ca moo tax suñu borom mu ne ko bokkoo woon ca ñay fekke id yulquuna aqlaamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladayhim id yaxtasimuun maanaam dëkk koo baax bëgg xamal ni ko fekkee woo wa kadalika yeneen histoire yi nga xamante ni mi ngi rot ci alquran lu mel ne li ko sunu borom di nettali ci jeexintalu suuratu yunus wala yusuf تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت تعلمها وما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل lii day ay nett la yoo xam nett lii kumpa la xamoo ko woon waaye ñi la jiitu tamit ñoom it xamuñu ko woon kon aayat yi dafay firndeel ni maanaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëpp fekkeewu ca dara ndax waxoon naa leen lu yàgg la xam ngeen ne diggante Muusa ak Isa diggante bu yàgg la diggante Isa ak Muhammad nag moom gën a yàgg lépp kon yàgg na fi lool borom bi subhanahu wa taala mu ni ko wa ma kunta min ash-shahidin bokkoo woon ci ñi nga xam dañoo teew foofa ci ba yàlla subhanahu wa taala di wax Moussa la mu la mu koy wax walakin na waaye nun seen borom anshana ñun ñoo sos qurunan ay maas al qarn borom xam-xam yi dañuy juyoo ci ñaata at la waaye wax bi gën a dëgër mooy téeméeri at la qarn wax bi gën a dëgër ci mu arriquun yi ku mel ne alxaafid ibnu xajar ñoom ku mel ne alxaafid ibnu kathir ñoom ah ahlu siyar dañuy nettali qarn mooy lan mooy ab siècle ñenn ñu ne siècle juróom-ñaar fukki at lay doon ñenn ñu juróom-ñett fukk am na ñu ne téeméer téeméer lañ gis ni mooy la gën a dëgër moo tax yonent yàlla da ne xayru naasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum maas bi gën ci maas yi mooy saa bos muy saxaaba ya am na ñu koy riwaaya xayrul qurun waaye xayrul qurun dafa baax xayrul naas moo gën a wér maas gi gën ci maas yi mooy saa bos gaca topp topp ca gaca topp topp ca te ñetti maas yooyu xam ngeen ni aimatul arba yëpp ci lañ bokk abu xanifa ci jiitu malika ca topp shafii ca topp ah ahmad ibnu hanbal moo ci mujj ñun ñun ci maas yi lañ bokk daanaka salafu salih taabiun yeeg taabiu taabiun yeeg imam al awzaa'i imam mujahid imam qatada sufyan ibn uyayna sufyan thawri imam yooyu ngay dégg yépp ci xuruun yooyu lañ bokk gis nga ñooñu yàlla daf leen defar ay jago wér na ci benn xadis yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam dinaa fi jóge julli ñi di xeer dañ naan hey est ce que mbooloo bi am na ku gis yonent bi ñu ne waaw waaw diw ni man gis naa yonent bi ñu ne kon seen xel na dal yàlla dinañu dimbali ñu daal di xeex gañe dinañ dem ba yàgg ñu ne xeex ñu ne eh am est ce que am na ku gis yonent bi fekk saxaaba yépp dee nañ ñu ne waaw est ce que am na ku gis ku gis yonent bi taal yoo xam ne yëkkati seen loxo gaa yi ni seen xel na dal kon dinañ gañe muy dinañ demaat ba jamono danañ est ce que am na ku gis yonent bi kenn du gis est ce que am nañ ku gis ku gis yonent bi kenn du ko gis est-ce que am nañ ko gis taabio ni gaa yi yëkkat seen taabio taabio yëkkat seen loxo ñu daal di xeex ñu gañe loolu lépp li muy wane mooy kon xurum yi maas yooyu maas la gu sell maas la gu baax gis nga ñooñu ñoo gën a sell ak dund ñoo gën a baax dund ñoo gën a ragal yàlla lan doon taari ci ay téere sax boo ko yëree ca maas yooyu ak bu tey bi da ngay xam ne wuute na ndax yàlla daf leen doon defal baraka moo tax yent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam maas gi gën ci maas yi mooy saa gos ga ci topp topp ga ci topp ba ñetti yoon yonent yàlla bi waxaat na tamit siècle bu ne ah siècle bu nekk yàlla dana wàcc ci kaw suuf kuy yeesalaat diine kuy nekk mu jënd siècle nag foofu borom xam-xam dañ koy firee ba léegi téeméeri at muy xaram xaram loolu nag borom xam-xam juyee nañ ci juyee bu yaatu ñii ne benn mu jëndit kese mooy am ci àdduna bi yépp ñii ne déedéet faw mu am ay mujaddid yu bari yàlla mooy ki gën a xam al imam suyuti yi saaxibu saaxibu kutub al kathira moom ku am fulla ak faayda la taalib na benn téere boo xam daf ciy tudd mujaddidun yi mu commencé bi saxaaba yi diw mujaddid la diw mujaddid la ba ak si ci taabio bi bi ñu yegsee ci boppam dafa am fulla loolu mu ni man maay mujaddidu hada al qarn loolu nag amaan na wallahu alam mën naa nekk ndax ku xam imam suyuti yi ak ni mu baree li muy taalif kuy taalif taalif ba am téere yoo taalif te xamoo ko imaam Suyuti da nga yëkkati benn téere ni ko ko taalif bi mu ne bii de xaw ma ko te fekk moo ko taalif ndax li mu taalif ni mu baree xaw tuuti kan moom ak Ibn al-Jawzi ak ñu mel ni ñoom ñoo jegeyoo ci bari lu ñu taalifal sunna yàlla yàlla fay leen yiw kon sunu borom subhanahu wa taala mu ne ñun ñoo sos ci ginnaaw bi qurunan ay maas mooy ay siècle fa tatawala alayhim al-umr fan wi daal di gudd lool ay at dox ci diggante bu yàgg yoo xam ne ak yonent ñëwut yoo xam ne kuy rencontre histoire yooyu di ko taalif amul woon ku koy mën a bind amul woon nit ñi xamuñu ko te yonent bi demut ca tuuru Siina fa mu nekk ba mën a rencontre histoire yooyu foofa kon la ngay wane mooy kii wax yu la gu bàyyi ko ci suñu borom subhanahu wa taala suñu borom ni ko subhanahu wa taala wa maa kunta nekkoo woon tamit ah ba léegi ah wa maa kunta thaawiyan nekk woon di aji sax fii ahli madyana ca waa madyana tatlu alayhim di jàng ci ñoom aayaatina suñuy aaya maanaam dem woon madyana xam nga fii ñu gën a wax léegi tuur say naa waaye Moussa bu jóge madyana ak histoire ya fa xew ak ni ko Alxuraan nettilee suñu borom mu ne ko nekkoo woon tamit thaawiyan di ku sax fii ahli madyana ci waa madyana ah tatlu alayhim aayaatina di ba jàng suñuy aaya ba mën a xam histoire Moussa nu mu demee ak waa ju baax jooju ñii ni Shuayb wala ñii ni du Shuayb walakin naa waaye li am mooy kunna ñun yàlla ñoo nekk mursiliina di way yónne di yónnent maanaam ñun ñooy ñi la yónni comme ni ñu yónnee woon Moussa moo taxit ñoo la wax yi comme ni ñu wax yoo Moussa inna awxayna ilayk yàlla nee na ñun ñoo la wax yi kama awxayna ila nuuxin ñoo la wax yu comme ni ñu wax yoo woon nuux ñoo la wax yu comme ni ñu wax yoo keneen ku dugg nuux suñu borom ne ko wa maa kunta nekkoo woon tamit bi jaanibi tuuri ca pegg tuur siina mooy fa nga xamante ni leeraloon naa ko démb is naaday naa jamono ji suñu borom di woo Moussa di wax ak moom la mu koy wax walakin wante rahmatan min rabbik lii yàlla di la nett li di la ko déey rahmatun yërmande la min rabbik ko bàyyi ko ci sa borom même yonent bi waxuma la alquran ji waaye même yonent bi rahma la yonent bi wax innama ana rahmatun muhdaat man yërmande laa di leen yàlla sédde wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yàlla yónni wala lu nga nekk yërmande ñeel nit ñi kon gis ngeen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yërmande la woon ñeel xel bu suñu borom jàllee ah yonent bi moo ëpp yërmande ci xeet bi bu yonent bi jàllee abubakrin moo ëpp yërmande ci xeet bi arafu ummati bi ummati abubakar yonent yàlla ne ki ëpp yërmande ci sama xeet te bokk ci biir xeet bi mooy abubakar kon walakin wante rahmatan yërmande la min rabbika bàyyi ko ci sa borom li tunzira qawman ngir nga waar aw nit yoo xam ni maa ataahum dikkawu leen min nadirin ci ab waaraate min qablika la jiitu parce que arab yonent bi la yàlla dëkk yónni ci ñoom nga xam ngeen ni bokk na ci li juif yeeg ñi jiif doon bañee arab yi mooy jàng bu ñu jàngoon ci seen téere yi ni yàlla dina yabal ab yonent ci mujjantalu jamono bu ñuy wooye Muhammad Màkka la juddoo Yasrib lay nag daawa bi nekk gis ngeen yéen ñi jàng siira yaakaar bi yàgg ngeen koo dégg ba loolu waral làmbe boobu ni ko xayoon daje Abu Talib mu ànd ak yéen sa salam da ko wax ni ko kii na tourné gis nga ñoom yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum dañuy xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu xamee seen baay comme ni ñu xamee seeni doom gis nga boo xaymaa gars yi bi ñu liggéey Abu Talib ñëw fekk booba yonent bi boos la sallallahu alayhi wa sallam ko ne ko daw la booba joxagum ko risaala gi yonent bi ku bari woon kersa ndax jikko yi ko yàlla jox yàlla daf ko yàgg dénk Abu Talib yonent bi comme daa bari kersa ñu bàyyi ko ci biir mbooloo bu xayraa ni kaay leen ndax xam na ni ñoo ñoo jóge ci arab yi bi ñu ñëwee mu ni leen toogee ma teral leen bu xayraa sànni bët bi xool mbooloo bi ni leen kenn desul ñu ne ko déedéet kenn desul mu sànniwaat bët bi xoolaat mbooloo bi ni ngeen ni kenn desul ñu ne ko kenn desul de mu ni oxon kay am na ko des vérifié leen seen mbooloo bi te moom gisul parce que liñ jàngoon seen téere yi mandargam yonent bi dañ koo xamul sallallahu alayhi wa sallam ñu yabal benn waaye mu ñëw fekk ndeke yonent baa ngi toog ci njëkk bi ndax moom dafa bari woon kersa moo tax bokkul ci mbooloo ñu ni ko waaye yow yow la ñu seet loolu ba xayraa daal di koy gis daal di waaw kay waxoon naa leen kenn des na mu ne Abu Talib loo bokk ak kii mu ne ko maay bàyyam mu ne ko déedéet wax ma loo bokk ak kii mu ne ko ma ne maay bàyyam laa def daay maay bàyyam mu ne ko wax ma loo bokk ak kii mu ne ko maag bàyyam ñoo bokk benn bàyyi mu ne ko loolu laa soxla woon xam naa ne juróo ko ndax kii bàyyam day teel a faatu xoolal loolu kon mu ne woon ñoom jàngoon nañ ko yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum dañuy xam yonent bi comme ni ñu xamee seeni doom comme ni ñu xamee seeni baay gis nga mu ne ko bokk na ci liñ jàngoon suñu téere yi mooy baayam day teel a faatu balaa judd moo tax bi nga ne ma may bàyyam xam naa ne doo bàyyi te effectivement bàyyam la parce que bu nekk may bàyyam dafa jàpp ne mooy ma ngi bàyyi ma ngi bàyyi kay bàyyi la kon moo leen wax ñoom xamoon nañ ko moo tax yéen yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónnee gaa yi xam nañ ko lool am na ñoo xam ne ci test yooyu ci lañ def ba yàlla baax yi leen ñu tugg ci lislaam gis ngeen xisab salman ak ñu mel ni ñoom suñu borom subhanahu wa taala ni ngir nga waatal nit yoo xam ne maa ataakum dikkal leen min nadirin ci waaraatekat min qablika lu jiitu la'allahum amaan na ñoom yatadakkarun dinañ waaru dinañ fàttali gis ngeen xissa ibni saida gis ngeen zayd ibn amr ibn nufayl yéen a ngi fàttali suñu daal saxaar saxaaba yi mujj balaa koor bi ah gis ngeen gaa yooyu nga xamante ni ñoom yàlla da leen a baax woon doon doon ay yonent waaye dañ doon wax kat ah يا أيها الناس اسمعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت ay yéen nit ñi déglu leen di ngeen xam ne yonent ñëwul de waaye nag xel nag mën a nekk dund da nga faat te ku faat ah man aasa maata ku dund da nga faat woon maata faat ku faatu sa mbir dana daal di jeex wa kullu ma huwa aatin aatin lim ñi dana yegg si dana ñëw asamaan si di noom noom waroon ay biddiw ni ca toog suuf si ne dekk dekk gaaral ay montagne daal di koy téye mu ne ku romb am àll seen neefare gileem war ngaa xam ne gileem ma fa jaar te moo ne nit ñi koy wax ay nit la ñu yàlla may ay xel rek waaye du woon sax ay yonent ay nit yu baax lañ amr ibn zayd ibn nufayl ca la bokkoon waraqat ibn nawfal ca la bokkoon qis ibn saaida ca la bokkoon gaa yi demee noonu kon waaraatekat ñëwul woon ci seen biir waaye yàlla yabal ci ñoom muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci kéwéntaan bi ko yàlla def nag baata fil ummiyina rasulan minhum yent yàlla bi turam sax mënu ko woon a bind sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla mi ngi gam-gam le nag diggante qissab Muusa qissab muhammad waaye nag di wane ngëneel yi Muhammad am ci mboolem ku dul yonent yi mboolem yonent yi gis nga Muhammad alayhi salaam turam sax turam laa turam sax mënu koo bind li gën a wér ci sunna mooy yonent bi daawul bind mënul bind mënul xamul dara xamul dara ci bind yooyu te loolu kéemtaan suñu borom gis ngeen keroog sulhul Hudaybiya bi gaa yi bindee Ali ibn Abi Talib bindee Muhammad rasulullah mu ne ko bu ñu xamoon ne yow yaa rasulullah coow lu bari bin effacé rasulullah Ali ne ko man du ma ko effacé yàlla moo di yónni xanaa nga effacé ko sa bopp yonent bi ne ko anam wan ma ko mu wan ko mu effacé loolu kéemtaanu yàlla subhanahu wa taala koo xam ne yow xamul A B xamul dara alifun baaxul baax doo ko liir ah ba pare mel ni mu mel jàngale jàngale yi mu jàngale waxoon na leen suñ suara 23 ans yoo xamante ni 24 heures sur 24 nga di ko wax te kenn mënu laa corriger benn mot la muy wane mooy kii yàlla moo la yónni loolu mënut a nekk loolu mënul nekk 23 ans ngay wax guddi ak bëccëg te kenn mësu laa corriger ci benn baax te it ñu la gën a dégg arab mag la foog bu ñu jàqee yow la ñuy laaj si baat leneen waxi baat gars yi naa ko yow kii li muy wax lu mu doon ah la yantatah fihi an zan ni ñu ko doon lumu al aana xam yàlla waxtu si ni ñu ko doon lumu. borom xam-xam dañuy dajale baat yi gën a jafe ci yonent bi doon làkk sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis baat yoo xam bu ko yonent bi làkkee arab yi dañ naan ko lii lan la ñun ñun dégg nañ arab waaye xamuñu li ngay wax lu mu doon kon dafa bokk ci ñi nga xamante ni ci giir gi gën a set làkk muy Quraysh moo tax Usman ibn Affan ba ñuy jamaa Quran dañuy gaa yi bu ngeen juumee na ngeen dellu ci Zayd bu ngeen amul fu ngeen jëm dellu leen ci làkk Quraysh ndax ci la yàlla wàcc alquran te ca la Muhammad bokkam sallallahu alayhi wa sallam kon suñu borom mu ni ko ngir nga waaraat nit ñi la allahum yatadakkaru ngir ñu mën a waaraat mën a fàttaliku moo tax alquran téere la boo xam ne téere bu mën a waare la bu mën a fàttali la man damay wax ne ki bëgg a waar wala bëgg a fàttaliku jël lu muy seeti leneen su fekkee xolam bu baax xol bu baax suñu borom ni walaw la an tusibahum tey su fekkoon ni bu jàddalee ci seen kaw musibatun musiba ak ju mën a doon bi maanaam qaddamat aydihim ci loo xam ne ñoom ñoo ko fàgg ci seeni loxo yàlla mi ngi wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yéefar yi ñi nga xam ne topp ñu njàngale yàlla ak yonenteem su fekkonte ni musiba daa tàbbi ci seen kaw waaye xoolal borom bi dafa idaafa musiba ji bi ma qaddamat aydihim wa ma asaabaka min musibatin mu ne fa bi ma kasabat aydikum gis nga doomu aadama doomu aadama normalement lu baax rek la waroon di mën a am ci kaw suuf musiba wartu war a mën a tàbbi ci kaw waaye comme dafa nekk xapoor nekk def katu bàkkaar te yàlla dafa def ni safaan bu daanoo ci sa kaw daa fekk yaa def tooñ moo tax mbokk yi aimatu salaf ñoom ku ci musiba masaana dal da ngay joxañ sa bopp nga xool man fan laa tooñee sunu borom subhanahu wa taala ah Muhammad ibni Sirin ah nee na daa ma sa xool benn ab yàgg mu ne ko yow ku perte ki nga tooñ nee na loolu ma ko wax yàlla nattoo na ma te li ko war ma ko wax sama mbokkum jullit xam ngeen Muhammad ibni Sirin tëjoon nañ ko kaso ci sababu danoon commerce di jaay diw ñoor jinax daal di ciy tàbbi bi ci jinax tàbbee naa ko tuur du ma ko tuur bu doon sama gars yi moom suñu classe bi ñun ñii da ngay ah naa ko ménager rek mu jeex mu ne ah su ma ko ménager kat yàlla gis na ko xaaral ma tuur ko te borom jàmbur la mu tuur ko mu di bor bor ko fay ko jot mënu koo fay ñu tëj ko kaso fekk Anas ibn Malik dafa dénkaane woon ne bu faatu na ko Muhammad Sirin jullee ñu dem ca kaso ba génn ji ko mu ne xam naa ni waa dama waxoon nangam fanweeri at ca gannaaw loolaa ma topp ba tey imam Zahabi di wax taarix wax jooju ak wax ju ni mel mu ne qallat dunubuhum fa alimu min ayna utu seeni bàkkaar dafa néewoon moo tax ku ci musiba daal rek automatiquement da ngay def ay calcul xam ni man bàkkaar sàngam laa def ñu coincé ma mbokk yi ñun dama ne kuñ ci coincé téeméeri coincé mënoo xam ban ci benn ci ñeen ci nga def parce que bàkkaar yi dafa bari ba yow bu ñu la coincé doo xam lan nga def sa doon ko parce que li nga def dafa bari ba mënoo xam ban la ci waaye mu ne ñun seeni bàkkaar dafa néewoon ba ku ci am tolof tolof rek day xam ne man lii laa def moo tax ñu taw ba gaaw tuubal kon musiba su tàbbee ci kaw doomu aadama la ko war mooy mu tuub fekk moom moo def gis nga léeg-léeg musiba day tàbbi ci kaw nit fekk yàlla daf koo nam ma sakal fii ci àddina man yuridullahu bi xayran yusuf minhu ah wa ma asaabaka min xasanatin fa min allah wa ma asaabaka min sayiatin fa min nafsik kon doomu aadama léeg-léeg yi koy dal ci ay sabaat boo ko seetee ba ci biir moom la daa war tuub moo tax tuub rek moo ko mën di dindi moo tax suñu borom ne su fekkoon musiba daa tàbbi ci seen kaw bi maa qaddamat aydiihim ci loo xam ne seen loxo ko fàggu fa yaqulu ñu wax rabbana yow suñu borom law laa arsalta ilayna tey bu fekkoon da ngaa yónni ci ñun rasulan ab ndaw fa nattabia ayatik ñu topp say aaya wa nakuna min al muminina ñu bokk ci ñi gëm kon loolu mooy tuub loolu mooy delluwaat ci yàlla ah delluwaat ci topp njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye suñu borom ni loolu même buñ ko waxee dañ koo wax waaye du dëgg ndax la koy waree mooy fa lamma jaahum bi mu leen dikkee alxaqu dëgg gi min indina bàyyi koo ci ñun nga ñëw nekkub yonent au lieu que ñu daaw topp la xam ne loolu moo gën ci ñoom déedéet qaalu dañ di law laa uutiye ah lii daal lu simple la law laa uutiyee ca lu ñu yàlla joxoon mithla ma uutiye Moussa comme li yàlla joxoon Moussa lii daal dañoo bëgg kaw ci bi gën a rëy sa yos yi maanaam bëgg nañoo weddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamuñ fu ñuy jaar pour weddi ko ñu ne dañoo bëgg yàlla jox la kaw ci mel ni yéen joxoon Moussa ku may fàttali ci yàlla joxoon Moussa wala xaraatina Moussa ci sa ayatu bayinaat yadwa loxo bi ah mbott yi ñëwoon di fitnaal nit ña ah njéeréer yi wal jaraada teen yi wal xummala wa dama wa wa dopaaja ah ak wa naqsin min al anfusi wa thamarat ah ay bekkoor ah des na benn muy juróom-ñeent ah borom bi jox na ko juróom-ñeenti kawtiif yoo xam ne benn bu ci nekk ah ay musiba la yoo xam ne dana dal ci waa kaw banu Israël ngir ñu gën a gëm gars yi ñu ne leen sa saraf yàlla laa war a jox lu mel la joxoon Moussa loolu lañ bëgg suñu borom mu ni waaw li ngeen di laaj mooy yàlla na jox yeneen bi gaaw a dem ku mel ni kam joxoon Moussa waaw ñoom xanaa awalam yakfuru bima utiye Moussa xanaa du ñoom ak ñi leen jiitu woon ñoom ñoo ñëwee di woon Moussa kon gis nga loolu moo lay wane ñoom gëmuñ sax li ñu wax. yàlla na la jox lu mel nam joxoon Moussa suñu borom ne awalam yakfuru xanaa du ñoom ñooy ñi weddi woon bi ma utiya Moussa ci li yàlla joxoon Moussa min qablu te lu yàgg kon bu ko yàlla joxoon Muhammad tamit dañ koy weddi gis nga yàlla subhanahu wa taala waxoon naa leen ni yonent bu mësa leen daf koy jox ay kaawteef ma yusaddaq bi luñ koy dëggalee moo tax Firawna bandi bi loolu la xam moo tax mu ne ko in kunta bi ayati fatti bi in kunta min as-sadiqin su dee am nga lu la yàlla wane luy wane ne yàlla la yónni indil preuve bi yonent bu nekk nag borom bi daf koy jox kaawteef bu tolloo lëm gën a aajowoo ci jamono waaw Moussa ngi nii alayhi salaam wala Ibrahima ngi nii alayhi salaam dafa tombeek jamono joo xam ni jaamu këram dafa bari lool yàlla def ko mu judd ci kër gu baayam bi bokk ci jaay yettikat xërëm yu mag yi waaye suñu borom may ko ci xare ak joti baax loo xam ne dana wax ay wax yoo xam ne dana tax nit ñi wet di xërëm yooya ba loolaa war rogalaat di rogalaat ba mu jël seen niñ ba cor xërëm yëpp Moussa dafa ñëw tombeek jamono joo xam ni suñu borom déggal yent yàlla saalix dafa tombeeg jamono joo xam nit ñi dañoo am doole ba doole gi yegg ci nit day dund juróomi téeméeri at nga xam da ngay tabaxu néeg ba néeg bi daan sa kaw nga dee ñu dem ca montagne yi di fa yett ay néeg yettum néeg ci ay montagne lu gaaw la kon suñu borom buy jox saalix kaawteef la ko jox kaawteef bu rëy moo tax suñu borom jox ko kaawteefu montagne yan doon yettee néeg saalix ñaan sunu borom sunu borom daal di def aw montagne ni tapee xar ak gileem daal di cay génn gu yor doomam di nàmpal mooy naaqat allah wa saqiira Moussa alayhi salaam yeneen ak yeneen yi ko jiitu ñu bari dama ko gàttal noonu Moussa dafa tombeeg jamono joo xam ne njabar dafa saxi bay jën am doole lool sunu borom jot ko ci ay kaawteef loo xam ni loola joggi na njabar muy yat wa muy loxo bi yéen yàlla Aïssa dafa tombeeg jamono joo xam ni ah médecine moo xew ah nga xam ne nit ñi dañoo avancé woon ci médecine lool lool sax nga xam ni boo demee tey Égypte ba tey jii da ngay dem ci xeeti garab yu bari yi ñu jëf da ngay si Égypte la jóge ñoom ñu yàgg avancé lañ nekk ci wàllu garab ak ñu demee noonu borom bi subhanahu wa taala jox Aïssa loo xam ni médecin yi xam nañ ko waaye mënuñ ko mooy fekk tungaana nga daal di koy raay ci kàttanu suñu borom mu dekki mu daal di ngaana gi dañ mu fekk ku silmaxa mu raay ko ni silmaxi dañ ci kàttanu suñu borom mu fekk ku faatu mu daal di koy fëgg mu daal di jóg ci kàttanu suñu borom loolu moom médecin yi xam na ko waaye mënu ko muhammadin alayhi salatu wasalaam tombeeg jamonoy man wax nag mën a wax xam nga arab yi jamono bi yent bi ñëw jamono yi poésie moo xewoon am na benn marché bu ñuy wax suuq ocase marché ocase ah nga xam ne dañ fa daan daje ñiy jaay ay jaay ñiy jënd ay jënd am na marché yoo xam ni benn waaye day ñëw taxaw rek ñu ne taggal ñu portable bi ci misaal xam nga loolu bëri taaxee woon waa ji sadd téeméeri bayit yoo xam ne bu ci gën a jub gën a neex moo xamante day taxaw ne di téye portable di wax rek man yàlla nee na mayoon ci mën a mokkal maa wax loo xam ne kéemtaanu suñu borom la woon su ko defee loolu mooy ne préparé parce que xam nga ku préparé mën naa ñëw préparé kër ñu dañ na lee lii lañ bëgg nga wayal ñu nga téye ko nii xool ko neex la rek commencé wax say wax jamono yi wax lu ñu tombeeloo nga xam da ngay gis koo xam ne dafay am fasaaxa ci mën a wax am na benn waay boo xam ne moom ñëwee na ni yéen dégg naa yàlla dafa yónni ci yéen benn yonent boo xam dégg naa daa dof yéen leen ma ko ma mocc ko moom dafa daa bëgg a mocc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko ndilee biñ ko ndilee ci kanamu yenn saa salaam mu ne ko man kat saw xeet dañoo ñëw ci man nee nañ ma yow kat da ngay wax ay wax yoo xam ne waxi dof la yoo xam ne kenn mënu koo dégg ma bëgg nga wax ma dégg su fekkee li ngay wax waxi jinne la man kat yàlla daf maa may xam-xamu jinne damay moccaate ah waaye bi ko yonent bi jàngalee xaw ma suurtu tuur xaw ma suurtu fusilat benn ci saar yu mel noonu bi ko yonent bi jàngalee dafa ne yonent saa salaam man mii dama daan mocc waaye fi ne yëg naa ne man maa aajowoo nga mocc ma ndax lii ngay wax nii mi ngi daw saa yaram bi kon alquran yëmul ak leneen kon borom bi subhanahu wa taala jox yéen saa salaam nag fasaaxa u'tiya jawaami al kalim moo tax wax ni u'titu xamsan lam yu'tahunna ahadun qabli yàlla jox na ma juróom yoo xam ni yàlla joxu ko kenn ci ñi ma jiitu woon benn ba neen nusurtu bi ruux bi masirata shahrin yàlla def na ku ma ni yow ah yéen yéen julli ñi ngeen di fontoo su ma paree ci dëkk bi foofu laa jëm si gars yi dañuy toog un mois duñ mën a nelaw ndax tiit yàlla defal ko bu njëkk xeetu njëkk yi foo war a jullee da nga dem ca église ya sunu xeet nag amul foo war a jullee dem jàkka ja boo gisee jàkkaay boo gisul jàkka jullee fa nga nekk xeetu njëkk yi bala ngaa jaamu yàlla da ngaa jëfandikoo laab ak ndox ñun nag ñu wàcceel ñu laab ak tiim noonu la ko limee ba mu yegg am na borom xam-xam yoo xam ne sax ëpp na yi ko yàlla déggal ëpp na loolu ah imaamu Nisaaburi am na téelif bu am solo bu mu taalif boo xamee ci xasaa'isu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na beneen borom xam-xamu taalif alqawlu ahmad fi qasaisi ahmad boo demee yàlla jagleel yonent bi kese walis yonent yëpp na nga ko ca dajale kon yonent bi alayhi salaam yàlla jox ko jawaami al karim mooy mën a wax donte am na xadis bu ñuy wax sax waaye nag wér ana afsaxu man nataqa bi doob doob ñi wax doob ñépp man maa ci gën a set laam nañ xadis boobu wérul waaye maanaa bi wér na donte nag li tax ñu tàmm baata doob ci biir arab yi boobu rek mooy baat boo xam ni dañuy wax ni boo koy wat da ngay wal sa gémmiñ gi làmmiñ wi day fees gémmiñ gi yépp moo tax ñu jëfandikoo baata boobu kon sunu borom subhanahu wa taala ni gaa yi ñu ni law laa uutiye misla maa uutiye Musa yàlla ko war a jox lu mel ni mu jox Musa sunu borom ni awalam yakfur maa uutiye Musa xanaa ñoom ñoo weddi wala li ñu joxoon Musa min qabl ci lu yàgg qaalu gaa yi ni sixraani tazahara am benn qiraa bu ni saaxiraani tazahara ñaar yëpp wér na sixraani tazahara saaxiraani tazahara su dee saaxiraani tazahara mooy Muusa ak Haaruna ñaar ñi ay njabarkat la ñuy dimbalante comme ni ko imam Mujahid nettilee ak Qataada jëlee ko ci Ibn Abbas su dee sixraani tazahara dañuy lëngale alquran ak tawraat sixraani ñoom ñaari yii sixraani ñaari téer la ñuy fees jalla ki jabar tazahara yuy dimbalante saaxiraani Muusa ak Haaruna nii ay jabar la ñuy dimbalante wala boobu mën nga ni sixraani sax ñaari njabar la na ñaari njabar nga xam nga ne olof dana fekkum njabarkat mu tuddee ko ab njabar xam nga ak ak njabar mooy jëmmi jëf ci waaye bu wolof ne ab njabar mooy ab njabarkat loolu olof dana ko wax kon suñu borom ni gars yi ñu ne ñaari njabarkat lañ wala ñaari téere yu fees dale ci jabar lañ yuy dimbalante ah wa qaalu gars yi ñu tekki ni inna ñun sax nag moom bi kullin ñaari téere yëpp kaafirun lañ weddi moom inna ñun sax bi kullin Moussa ak Harouna yëpp ak yow Muhammad ak ay Moussa yëpp sax weddi nañ leen ab yéefar moom alkufur millatun waaxida wala zanbu ba'dal kufri kéefar moom li borom xam-xam yoo xam ne millatun waaxida wenn yoon la kéefar nag boo ci xasee nekk bàkkaar toppatul la ndax benn bàkkaar ba ngay am amatul bàkkaar bu ñu lay tegal bàkkaar ba ngay mooy war a tàbbi safara mu jeex suñu borom ni comme léegi da ngeen a jàpp ni ñaari téere yi téere yi fees ak njabar la te njabar bi da koy kéré xul nee leen partout da ngeen indi bi kitaabin ci téere boo xam ne min indillahi day bàyyi koo ca yàlla huwa moom ahda mooy gën a jub mooy gën a baax min huma ci ñaari téere yi def leen loolu lii mooy ak dàgge li olof yi tuddee dàgge mooy samp ndënd ah alquran bi mën nañoo indi alquran bi ni mel sunu borom mu ne fexe leen ngeen indi alquran bi ni mel mënu leen ko de ñu dem toog sunu borom ne fàttu bi surat mi misli ci suratul baqara wenn saa rek mel ni moom ba mu yàgg mu ne loolu sax bay na law ijtamaat al insu wal jinnu ala mithli misli hada al quran ah même bu dee benn aaya sax benn aaya sax mënuñu ko indi walaw kaana ba'duhum li ba'din zahira